parce que tey comme bëre mooy suñu métier yaakaar naa ni saa bu ñu bëree rek dañu war a toogaat préparer waat pour beneen bis ndax bés bu xas a romb rek jeex na ñu ci beneen. waaw te sport mooy suñu métier bëre mooy suñu métier moo tax jëlaat nañ combat di ko waajalaat ñaan yàlla may ñu si ndam. waaw lu tax xam di laaj. <laughs> yaa ñoo leen nuyu baax di leen fay. tey dafa mel ni da nga fay ñëw face to face sa diggante ak Tapha Mbeur. waaw dama tey pour face to face quoi. waaw ñu nga dugg si rek commencé yëngal stade bi xam nga lan la. waaw ay xale lañ te ñun fépp fu ñu nekk dafa war a yëngu. loolu moo tax waaw bilaay. lan moo ci Liss Ndiago. damay bëre muy sama métier muy mbër maam ay kilifa ñoom ñu waxtaan ba ne ma jël nañ diw man li ma si am mooy demal préparé wu ji mënu ma joxe sama bopp nag ba pare di décider li ma mën mooy waajal ñaan yàlla may ma ndam. képp dégg nga li Liss wax. nee na da daan ba rendi la woo ci sa put. non rendi moom rendi moom. nee na daan ba rendi la woo ci sa put woo sa put la génne. moom daa bëgg wax. daan na mu wax. maa ngi koy bàyyi mu wax wax amagul. nañ waajal rek moom na xam ne am na bés. waaw bu gee moom si lay xam dara ko waa jour combat bi bu élément bi jullee gee ba pare moom si lay comprendre. fan nga teg loolu bu ñu jullee gee ba pare lay comprendre lan la. maa ngi xale. maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex maa ko gën a soxor fu maa ko gën a bon. dafa am maa ko gën a bon. waaw dafa juum ku waa dama koy confirmé. nee na dim na dimanche boobu. ca gée ngay comprendre. waaw loolu waxi mbër la rek. mais combat bi pare naa ko ni ma war a paree. bëre mooy sama métier. amul teel parce que tey làmb bëre la daan ak daanu ndam yàlla moo ko yor. tey man dama doon ut si mu ut si yàlla mun ni mu ko joxee munoon na ma ko joxee xañ ko moom tey su ko yalla joxee ndam dama koy ñaanal rek ndam bi jékkoo man ma waajaliwaat ñëw c'est pas la fin du monde li ma bëgg si làmb mooy liggéey si doon ci champion roi des arènes teral samay waajur man samay waajur rek ñoo ma yëm kon nag pour teral leen foog ma nekk ci toog sama kër naan damay toog di noobale mayu ma ko liggéey bëre moo ma koy may. dafa juum juum moom moom juum waaw ñëw dugg si njaaxo bi quoi loolu mooy jumteem mais dama koy maa ngi dégg muy wax benn slogan nee na góor xaw ma lan du yërëm góor waaw boo yërëmatu da ngay yërëmatu fu ñu lay yërëmee nee na ku jeexu sa morom yooyu waaw wóor maanaam ki ku ku mën a sàq mi. nee na nag yow da nga ay wax fi mu toll bu ma ko jàppee dama koy rend ba doo ci put bi. nee loolu tamit ay wax la rek da ngaa na muy wax parce que fi mu toll nii da nga moo tax ngay wax daan ay rocc put mais rocc put amul ci làmb. waa man bu ma la bee bës du ma bëre yow bu ma la bee bës du ma bëre yow moom moo ma bës amaan na loolu la foog quoi. te waxoon naa ko góor du nelaw day noppalu su ma noppaloo ba pare damay liggéey waat lan ngay wax Liss Ndiago. du ma wax dara lu dul na waajal yàlla boole nañu làmb bi coow moo ñu boole na pare si côté ma pare samay côté yàlla na ma yàlla may ndam. làmb moo ñu boole bu du woon làmb moom man maay liggéey leneen muy liggéey leneen maanaam tey coow parce que tey combat bi gis nga bi mu taxawee léegi coow li nee na kur ñii ne lii ñii ne lële tey loolu fu mu am mooy da ngeen war a bëre moo tax ñu jël ko pour bëre di ñaan yàlla may ñu si ndam te gëm nañ ni bu ñu bu bis baa incha allah dinañ am ndam si kawam. waaw ñun si coow lañ dëgg si coow lu rëy mis nañ coow bu rëy boobu noonu bu ma ko jàppee rek cin dina tàq. bu ñu bu cin tàkkee nan ko daan waxee ñëpp xew.